jërë ngeen jëfati mbokk internet yéen ñi ñu topp sa su ne seen seen bi di info 2STV dal leen ak jàmm tey ñu fas yéene ñëwaat ak yéen ci beneen jangat bo xamante ni Moustapha Diop Mame Birame dañ koy faral di def ak ki nga ni di Matar Diallo tey nag ñuy wax ci li nga xamante ni di appelu euh, président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye digganteem ak ki nga xamante ni di Poutine nekk njiitu réew bu Russie ñoom ñaar ñooñu nag man nañ ne fan yee ñu génn am na appel téléphonique bu doxoon seen diggante bi ñu doon wax ne maanaam am na ay accord yoo xamante ni Sénégal ak Russie nag war nañ ko commencé di jël gën a taxal tamit li nga xamante ni moo di diggante bi waaye laata ñuy sori ñu déglu ñi nga xamante ñoo di kër yi seen jàngat seen xalaat si li nga xamante ni moo di gisee bu ni mel. Euh, euh, ko les nouveaux dirigeants sénégalais le premier Ousmane Sonko est-ce que c'est une énigme wala mystère euh, pour euh, les occidentaux xamuñu exactement parce que quand tu entends une journaliste je pense je pense que journaliste la wax euh, Diomaye Faye ci Ousmane bu premier ministre ba de laïcité au Sénégal <laughs> que il a de laïcité au Sénégal kay. non loolu aussi da nga koy comprendre parce que aussi euh, mi Ousmane Sonko di Bassirou Diomaye Faye parce que en général dañ nekkoon victime d'une longue campagne de diabolisation euh, te bokkoon na si ay affaire de frères musulmans ak ay intégristes ak yoy donc ñi nga xamantene ne peut être euh, mise à jour ñu li nga xamantene moy mooy seen information peut être ci situation boobu nañuy toll yenn chef d'État aussi dañuy am intérêt rencontrer ñi nga xamantene ñom ñoo nekk au pouvoir parce que aussi déjà ndaw la mu porter aussi euh, aspiration peuple bi te àdduna ah dafay dafay dox. absolument euh, gis nga boo xoolee tey jii euh, fan yi ñu nekk Espagne mi ngi jéem di régulariser ay sans-papiers. parce que. mais tamit maanaam xam nga journaliste bi li mu wax noonu tamit wax dëgg yàlla amul fenn ba mu tegu maanaam Sénégal depuis gouvernement bi nekk fi ba léegi laïcité amutut fi te ku nekk xam na ne maanaam réew mi nam daan doxee si wàllum religion wàllum diine. amul lenn loo xamante ni yaakaar naa changé na si bu fekkee ne changé na ñooñu wala ñoom ñu jàpp ne loolu moo tax mu changé mooy par rapport ak Ousmane Sonko li mu doon wax ne école bu tijjee amatul benn maanaam établissement boo xamante ni am nga droit ay bi mu sol ko na bëgg a solo moo xam mu muur wala moo xam muuruwul quoi yaakaar na ne comme ñoom ñoom quand lu lañ bëgg jàppee li nga xamante mooy laïcité amatul fi mooy dox dox mais réew yu bëri ci àdduna bi xam nañ ni que relation yi ñu doon am ak Afrique mënatul wéy parce que ñoom dañu soxla interdépendance la ñoom dañu soxla africain africain aussi dañu leen soxla. Mhm. donc il va falloir que ñoom aussi ñu comprendre que non le reste nag le président Bassirou Diomaye Diakhar dañ koy féliciter parce que aussi quoi qu'on puisse dire on a une euh, tradition euh, diplomatique boo xamante ni daf ko héritier. Euh, le président Yasser Arafat fii la ko Senghor joxoon passeport diplomatique. absolument aussi doon voyager ak yeneen ak yeneen. Mm. su Macky Sall. Sénégal 2016 2017 dugg na ci conseil euh, conseil conseil euh, de défense des nations unies ak yenn ak yeneen yoo xamante ni am nañ ko en tant que euh, Sénégal diplomatie moom moo ko jox te loolu yaakaar naa tradition la boo xamante dañ koy perpétuer te moom bu ci nekkee duñ def lu ñu rafetlu ko te aussi le président quoi qu'on puisse dire mi ngi assumer son rôle et sa fonction de président de la vraiment pleinement vraiment maanaam président nu muy assumer responsabilité am sax ak nu mu koy doxalee sax maanaam Sénégal yi damaa yàgg ne ba léegi xamawuñ ko quoi parce que ñoom dañoo jàpp ne président Bassirou Diomaye Diakhar Faye maanaam respect bi nga xamante moom lañ ko war a jox dëgg sax moom lañ ko joxul quoi par rapport rôle bi nga xamante ni mu ngi koy doxal di ba léegi di mu nekk président ba léegi quoi mais daal man man comprendre ma Sénégalais yi quoi. dans la France parce que ñu ngi euh, euh, yi ne euh, wax na tey téléphone ak le président russe mënoon na ko wax ba pare bañ ci communiquer. mais il a préféré lui-même communiquer sur ça ne wax naa ak moom téléphone dans un contexte où gis nga ko li journaliste française qui, wax ci ci ci est-ce que quelque part où la France a intérêt un peu à revoir les les trucs que sont bëggee garder euh, ses intérêts au Sénégal notamment. <laughs> mais c'est mais français yi tamit ñoom lan lañ bëgg ñoom quoi maanaam lii et maanaam euh, li ñu doon wax ne ba léegi ñoom ñun dañ ñoo moom ba léegi kon lii day bëgg day mel ni day bëgg confirmer comme quoi que man ko ne maanaam président Bassirou Diomaye Diakhar Faye amul droit wax ak kenen wala amul droit wax ak keneen ba noppi ëlbatiku ba nopi di ci communiquer quoi kon ñun français rek wara waxal ba nopi communiquer ci ñi respecté wuñu français yi war na yalla respecté wu respect respecté wuñ ñun ñun sénégalais quoi comme quoi que ne ba léegi dal dañ ñoo jappé ben xalé bo xamanteni lepp loy dem def dang ko wara tagu tàggu tàggu sa papa wala lepp loy wax dang nga war a tàggu sa yaay quoi alors que ma ñom nee yu ñun am nañ ci indépendance kon indépendance googu ñuy wax ba légui kon dafa melni ba légui ñun amaguñ ko quoi soo ko suivre sax dafay yaakaar ne dafa bokkoon ci benn liste ci législative yi ñu gëm a leen moom femme bi était la Dabla tellement il était mécontent parce que xam nga même boo xamul Sénégal nu muy doxee soo demee ba war cee wax quand même nga war a gëstu un peu. xool ñi nga xamante ni xam nañ ci nga interroger leen. Mhm. Euh, pour am la bonne information. mais déjà soo ñëwee yow nga ne le fait que le président Bassirou Diomaye Faye ñëw na pare ak ñaari jabar loolu ça te ça veut dire que yow <laughs> les seen i valeur ak seen i yitteelu la yitteelu la sax parce que France boobu ñu nekk képp koo xamante ni am nga fa ñaari jabar dañuy dal sa kaw maa la ko wax étranger boo xamante ni mu ne leen yéen kat amu leen di tere polygame déedéet de cette de cette façon de cette même manière ñoom tamit dañu war a respecter effectivement li nga xamante ni moom mooy suñuy gën gëm fii boo leen di déglu ñuy wax ak benn euh, euh, euh, am benn outin maanaam benn mooy li ma doon wax léegi rek maanaam lépp lu Sénégal du dugg daal ñoom dañ leen ne war a tàggu ko waaye loolu wolof Njaay di wax naan maanaam euh, lëngoo mbagg maanaam neex na lool lëngoo neex na lool waaye koo bàyyi mu demali mbaggam loolu mooy lii nag maanaam comme ñoom nee nañ bàyyi nañ nañ ñu bàyyi ñu dem ak suñuy mbagg moo xam mu xoos moo xam xoos wut vraiment tamit maam te ñoom maam li nga xamante moom la ñu daganal seen réew maanaam euh, góor benn jabar rek la sañ am fii Sénégal loolu amul fi ku mu neex ku ne mën nga am nga droit am nga ñaar wala am ñeent wala bu la neexee nga yem si benn waaye euh, maanaam forcément benn lañ war a am loolu yaakaar naa ñoom na yem seeni réew rek te ñu bañ koo jéem a impliqué fi nga xamante moo di suñu réew moom jàppuma ko yaakaaruma ko yaakaaruma ko surtout France. xam nga loolu tamit doy na waar. Mhm. bu ci nekk def na au minimum vingt cinq millions de morts deuxième guerre mondiale plus de cinquante millions de morts te Europe la jógee bu ci génnee nag américains yi parce que américains yi ay anglais la yu traversé géej gi rek. tout simplement nous ñëpp ay occidentaux donc maanaam nous ñu dafa amul dara ñu ko pendant des siècles ñuy affaire religion ce qui fait que seen pauvreté bi nous a accentué pendant des siècles nous la France ak Angleterre pendant 100 ans ci ci yi en Afrique ñu euh, puisque exploité

connecté leen ñaari euro yi ñun yoo xamante ni mooy jóge rek ñëw ba seen dëkk di leen bi jox. gaz bu leen di euh, gérer. de la même manière France boobu daanaka uranium bi nga xamante ni moom moo tax ces 56 réacteurs nucléaires di tàkk yëpp. Hmm? ci gën a bëri Niger lay jóge. Niger lay jóge léegi Allemagne di dépendre ci Russie France di dépendre ci Niger. mais xam nga ñoom xam nga kon tubaab yi maanaam ñoom maanaam dañoo yëpp africains yi rek quoi mais waruñu leen di yëpp maanaam yu bëree bëri yoo xamante ni ñu ngi koy fi lay jógee ci Afrique di dem foofu noonu quoi te toujours nag bu ñu waxee maanaam ñuy rey ñi ki wax ju bari yoo xamante ni doo comprendre sa fan la yem France mën nañu dana daanaka moo leen moo leen moo leen yor Allemagne daanaka ki nga xamante moo di Russie moo leen yor mais comme quoi que nag léegi nag ñoom buñ jugee nag maanaam di yëpp réew yooyu noonu te France ku nekk xam ne ressources yi nga xamante moom lay jugee fii Sénégal fii di dem foofu kenn xamul naka la toll ñaata entreprise français ñoo nekk fii ci biir réew mi di Sénégal di fi alal yu baree baree bare di ko yóbbu foofu te yi nga xamante moom lañ ne employé rek maanaam boo ko déggoon yow maanaam sa loxo dat sa gémmañ mu nekk loo xamante ni maanaam luñ war a wax la léegi dëkk yooyu nga xamante ñu ngi dépendre si ñoom bu ñu demee bay yeewu jàpp na ñoom kat li ñu yor nii mais c'est des richesses yoo xamante ni moo dañu permettre à n'importe muy ñëw bu ñu la waxee Niger lan lañu lan la fa France doon jëndee uranium au sur le marché international day dem ba ay 130 mille ñu ngi fay cinq mille nigériens. cinq mille cinq mille francs CFA. ci benn euh, euh, kilo durable mais bu ñu demee ba ñooñu am ay autorités yoo xamante ne nii. am na fulla mais am nañu fulla ak fayda jàpp ne bu ñoo am uranium nga xamante ne nii tey bu ñu bomb bu gën a am doole bomb atomique la boo amul uranium doo ko defar ñoom ñu am loolu ba pare ñu placé leen pays le plus pauvre ci àdduna bi xel. mais loolu est-ce que xel mën naa nangu loolu tamit ndax xel mën naa nangu lii nga xamante moom la maam bi na wax nii. yow bu fekkee ne maanaam réew mi nga xamante moo tax yow ngay développé réew mi tax ngay soqaliku réew moom ngay mën a tuddee pauvre kon de man xaw ma kon man maanaam man dégg ngeen tamit li nga xamante moom lañ fa jëlee koppar gu néew gii maanaam maanaam man man man vraiment ñun africains yi nag vraiment war nañoo xoolaat suñu bopp de surtout suñu ñi nga xamante ñoo di suñu jii nag billaahi donc pour dire que bu ñu téyee suñu richesse tey jii nii France soo ko demee ñu ngi am ay problème mu chauffage ak yeneen ak yeneen te hiver bii di ñëw ci kanam la jëm. <laughs> alors gis naa Sénégalais bu bind tey la chaîne LCI euh, bi nga xam ne ñoo ñoo tegoon ndaw soosu ci seen ay chroniqueur la ko moom Sénégalais la daf di vivre en France léegi daf bëgg ñu invité ko pour mu ñëw tontu femme boobu wax leen li muy wax xam. dara yal ne ko pas le Sénégal. Moustapha Sylla Moustapha Sylla et espérons que ni dinañ ko accorder cette possibilité là d'aller répondre justement à cette dame là pour ñu xam ne Sénégal léegi comme ni ko Dame Mbodj doon waxee sax il a bien fait de le souligner complexe moo fi jeex. mais de toutes les façons sax man gëmuma ne femme boobu dafa wax en ignorance de cause gëmuma loolu man li ma gëm mooy xam na mais li ko yitteel mooy yàq deru Sénégal expliquer comme quoi que autorités yi fi nekk ils sont plus religieux. ci religion bi la en tout cas loolu loolu bizarre na rek vraiment nag tamit wax dëgg yàlla euh, suñuy njiit moom bu ñu demee ba di leen jiiñ loolu moom euh, yaa quelque chose mais en tout cas lu si manaam lépp mooy loolu moom dara amul si amul lenn loo xamante maanaam am na si loolu noonu si suñuy njiit yàpp na yaakaar naa ne lu leen gën a ñor bokk na si li nga xamante moo di développement réew mi développement réew mi rek jàpp naa ne mooy li nga xamante mooy seen yitte principal bi nga xamante ni am nañ ko ci réew mi quoi leneen luy ñëw nag dog see doole ko parce que ñoom ba nañ ne euh, laataa ñuy jor yor nguur gi sax mën nañ ñu bari dañ leen daan wax ne ñii ay ibadu lañ bu ñu leen joxee réew mi maanaam euh, religion dootu fi am affaire tarixa dootul fi am gàmmu màggal yooyu noonu yëpp dootu fi am kon tey buñ ñu demee ba nga xamante ni benn benn tubaab moo taxaw ne yan maanaam liñ fal nii kat maanaam wàllum diina lañ lañ gën moo leen gën a ñor ka wàllum wàllum développement kon kooku yaakaar naa ne am na am na am na am na lu si nekk quoi wala mu tubaab bi comme ni ko maam bi doon waxee rek muy wax waxin koo xamante ni ku ind la ku ind réew mi lay doon mais sénégalais boobu ñuy wax nag war naa dem foofu leeral mbir mi nu mu demee moo kenn tolloon di jërë ngeen jëfandikoon loolu la ñu leen andiloon si kanam tuuti incha allah beneen vidéo jërë ngeen jëf.